tàmbalee ci ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo fi njëkk wóotu Serigne Touba xam ngeen ne tombé woon naa jamono yu metti bu amutoon dogo am yitte ju kawe xam fam jëm kon yoonu du ak si fi tey ak Cheikh Mouhamadou Fadil noonu la demee foo ko ak Cheikh Mouhamadou bàyyi woon ba mu amutoon taxawaay bu mat sëkk kon du ak si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 tere buñ ko dee def itam woxoon ke ci biir këram ñu fekk ko fa ci biir këram loolu loolu xëtt ndax lislaam dafa am ay loolu sëñ bi santaaniwu ko ñam ko digal tam xam nañ la leen sëñ bi digal Baay moom yàlla defe na na seen maam jëme doon Cheikh Cheikh Ibra ñoom yàlla defal na leen tafe adduna soppiwu leen lu leen sëñ Tuubaa digal luñ ko yokk duñ ko wàññi fu leen ci sëñ bi yem la fa lañ ci yem